تنص غيبي آيات كدول وتخبو يالين يقول هو الله أحد بات الله بينا bu fekkee tuubeen nga bàyyil noonu fekkee tuubeen nga waaye yàllaa xam yàllaa xam ndax sama mbokk séeréer yi ñoom roog lañ ko tudde santale ko seen piir te terewul dafa dafa wuyu dafa wuyu bokk na ci li ma seetlu lépp lu ma yitteel bu ma ko ñaanee ci wolof lay gën a gaaw a faju bu ma ko ñaanee ci axat ci sama seetlu bopp seetlu naa ni itam lu ma yitteel lu ma gisee xale bu ndaw bu ma wóor ne xam na pas ci góor bi bu ma ko jànguloo fàtte moo mooy ëpp doole ma duggaloo fukki mag xëlwa maa ko seetlul sama bopp benn tubaab bu ma tooñ bu mett ba jël alal neexal ko benn journaliste ci dugal ko ñu ko bindal nangam ak ci jax ci jax da nga jël neexal kamu kosa xaritu Boubacar Odey Diop mu wax ma ko ma woo sama caat woo Fatima bu ndaw sama sët bu Pape Malick xam jom seen man leen góor gi ci bone carré suñu wax man leen tey tabaski jàngal leen ma fàttee dafa am ku ma tooñ bu mét te jotee ma ko booba nii la ñu bijemy przeciwko kosztów waa këram gis ko mu kuy naaje xëy la ndax borom barke la kuy la yépp aj ajjuma la koy amee mu dem li ñoo tuddee weekend benn bés mu gis ko mu def lu mu masul def mooy wàcc lu daan def bu wàccee dugal otom ci gaaral jaar ci escalier mu yéeg bi yoon mu ni dafa nam ma doxal bi mu dugalee watoon ba noppi mu ni dafa nam ma génn di traversé mel ni dafa àndul ak sago oto yenu ko ne su amul woon ma wax la Sëriñ Babacar waxoon ca téeméeri fan mu ne nañu wax Maodo bu bàyyil ma ko ndax souvenir la moo tax du ma ko saaga ولا tax na ñoom nit ñu yéeme lañ Lamin Giri bés ba dem tugal te booba Lamin Giri parti socialiste la àndal te booba ñoo amee gouvernement ba ca tugal bu ñu validé élection yi rek gor du am dara bu ñu ko validé nag Senghor am waaye tubaab bi seen xel nekk ci validé ko moitié ndax mu am siège Lamine Gueye am siège liñ Babacar li dafay indi njaxas waaw mu ni dafay indi njaxas ñu ngi jox ñaari seet yi rek seen bopp lu ko mooy dafay indi njaxat Joseph Mbaye ñu ko defe naa Joseph Mbaye mu wax Sëriñ Babacar lu ko defe naa dégguloo li ma wax mu ne ko dégg naa ko su ma digalagul fen mu ne ko dégg naa ko ki ma digal moo day fen ni ko su amul man da gërki ba ñu génnee Joseph ñu ma góor gi dafay xam ndax man formation marxiste la amee li mu wax bu amul ma génn

nan ko yette ni ko tan go djulli mo ni ko len ni moy tawti ni man ma do ko tawti ni ay tan go re ko djiti sa ma tayi ni xam na ko la xam na نفسه وقد جدا كيف قبل لك وقع ببيت Domnul Bezici, prezident la Mingei. ونمر تمام سيد الحاج مالك كل واحد الديني Dushmanla koyariyeci politik. Bana da saçlar hanım hanım denirler. ¿verdad? Yeni bir şeyleri merakta yürüyordu. Hala kalmalıyı da hala. Ben onunla sizin götüne bir anla verdi. Benimle bakanlar var. видел в мире. Где Киргизия? Открытый мир. Вдохновляет

Thank you. waxuloo ci li muy laaj da nga rafetal fekk ma mës dégg ci Sëriñ Babacar Si mu ne laministe ak symboliste dana dem ba ca sëtaat du ja bëgg tontu te bëggul làmmiñam laal ko tax kon tuuba topp ko sénégalais yi ay nostalgique lañu ku ci nekk Senghor sudoro ca jóg ku ci nekk Lamine sudoro ci jóg maa la ko wax waaw ñoom ñaar ñëpp sama wëllëre la te ku ci ne wax nga ba sa xol bar tax na li sëriñ babacar indi woon du fi jóg bëcc sa sàcce moom la momadu ja bëggoon tontu te rus ko wante teg jiddiwaat te jiddiwaat na ku xamul xamuloo wante jiddiwaat na philosophe allemand bu mag bu ñu doon laaj ci fan yii pour sa réew mu ne crise bu jëm ci économie ragaluma crise bu jëm ci finance mais na kris bu delosi bu delosi li fi xewoon ci jamono Hitler moo tax borom xel du nelaw mu ni Hitler ak gon nag ñun ba wàcc suñu waxi ndax dictature dafa yàq valeur te valeur yi waxaleen yàq kon nag bu yàqee ba yàq wax réew jeexal Hitler àggoon na ci ak Allemagne dem na bëgg gëmloo leen ni bu ngeen jaayee seen bakkan ba gañe Mercedes dootu ci génn kenn dootu ko defar ndax allemand yi yi ñuy jaay Mercedes oto yépp Mercedes lañ ci gën a bari lu tax dafa xajee ci mbedd te ñoom ay philosophe lañu Mercedes xajul ci mbedd fa diis leer wax leen ni bu ngeen gañee guerre ay Volkswagen rek ngeen di gis ci mbedd yi waaye dootu leen gis Mercedes almaa yi xeex ba bëgg de ndax loolu dañ faf tawarkal la seen bakkan des ci pour wax la lii safar lo lu ko gëna mëna yàq réew amul far la mënul ñàkk wante far far lo moo bon mais far nitu politique yi di ko jàng ci nitu diine yi yàlla su ngeen nu mayoon ñu yeewi sunu gan di toog ndax président téléphoné di ko soxla tabarkal la sunu doom la sunu wëllëreek moom ëpp na fukki at

moyak gwa nena ko anya moyak gwa nena sai sai moyak gwa Como torto de costa. nee na ko añaan mooy yàqal góor yiw wu mu jóge ci moom mu jëm ci moom mu dogale moo tax yitte baax boo amul yitte rek adduna tukki te hmm? yonent bi dafa wax nee na ñetti jamono amul ne philosophie ya ko wax ko waaye du dëkk nee na ñi démb te démb amul nga ni ëllëg mu ne ëllëg amul nga ni tey mu ne wax اليوم غدا ما أخطر اليوم لمغدا حوله بوارك إذا شعر أبسط نزعت الدنيا عليك النبي moo tax tubaab yaa ngi fii soo ko jot ci semaine bii passé académie française daje nañu ay mag wax ni bu kenn waxati ni ëllëg xale yee ko moom bu ko kenn wax nañu wax ni tey xale yee ko moom yi toog leen ba ëllëg lu ëllëg di indi ca la égoïsme yam dund sa dund ba noppi ne xale yi xaar leen lu suba lu suba di indi fekk yonent bi wax na ko junni at ak ñeenti téeméer ñoom ñu ngi koy soog a wax nee ñu bokk xale yi yemoon ak mag ñi cër ci biir jamono adduna gën a parce que ñoom fekk aada nag seytaane rajim la waaw aada seytaane rajim la mooy wax muñal rek waaw muñ ba am muñal ngay muñ di muñ di muñ ba la séeréer ba waxoon ñu ni ko ngóor yaa di dund mu ngi dund bu ñëpp neex davet et. Vuol dire che l'immondere, una delle moglie che la tu che te dica. Menurutku sama kuku juga tidak menurutku. Yusuf Rizka dan Rasul Mahfuz Baca Rasul Mahfuz Selamat Di penuh hukuman dia sendiri ini Dia menyusahkan Berkubok kuki sendiri Dan kena Fatimah Dato' Amci Kausu Nainan Rayyum Nip Tengikut diri Nip Aikul Deklet Ali ibn Abi Talib di xeex ak Muawiya ibn Abi Sufyan dina Aliou def na xale yu ndaw yi xam ne ñuy yonent bi da jóge ngir Fatima ñu leen génne yéen tax nit ñi ñëw ah ñu génne xale ya solal leen ay yére ñu mbërile ñu mel ni ay njurli yaa san fett ñu dox la fett ci attan jaas ñu jox la jaas bu ndaw jox la jaas bu ndaw dina am ñu di leen xool ñu nekk ci yaram bu jëkk ba mu di yaram am di taw Bukan bingit atau bingit Sekian Baik kena bingit Wah-wah kambuh Bukan Mesti kufi jahat Kisah-kisah Kali ini Nyonya-nyonya Nyonya-nyonya Między rozstrzygnięcia mężczyznami góry ale nie nie bez zadowolenia. بقية السيف أرضى أكمل في الغداء وبقية السيف أرضى أكمل في النظر Bahaya ini Akhzal wa akhzal Rinsya kusi mengenai kujin dan bahas Sedot tak ujit Dan warna kami buat yang dia mencapai Kujin dan bahas Kita sedot tak ujit Dan saya buat kami Sedot tak ujit

to mm-hmm. give

sini tak pasti Imam Masyari nombor warna merah sama mau dia sikit dan sikit jangan di situ tak saya lebah lebah jangan di sini tidak ada seorang yang lebih sabar Dunianya dia boleh menarik Dan nak sini ada memang dia kena yang baik Mana pun saya boleh kena kisah ni ada ni Bumai ni orang Di kongkul yun ni Waya khabar semua Waya khabar Walaupun biasa والله موسى وأقيت الفن الفن أصبح قطعة مرموقة من يومه الفن يجمع amul responsabilité mën nga ko melal ne xalil la maanaam ku lewet la góor gu amul responsabilité mën nga ko melal ne xalil la maanaam ku lewet la waaye góor gu am responsabilité boo nee xalil la mooy ku tey ñaari góor yooyu yàlla leen ñetteel nga ne xalim la sëriñ Babacar ne aji dernier la aji dernier la yàlla layatul teeyul dafa dëngiirlu ndax perlu ficou, que ficou. ci domaine boobu bu am solo la ndax dafa feeñal taar di ko xam taar waxuma ko ko xamul am na ñoo xam ne dañuy riis rek ci jënd mais li ñuy jënd xamuñu maanaam kooku kenn du ko def man nag sama métier la ba ma dee ba léegi su ma xam ne ko ومن الكلوات يوسع بين ميتة الله ودعنا لهم بين الوقت وجل أنكر نعم في أمر ويلف نعم نعم ويلوك حق ไม่รู้จะขับมันจะขับจะ يجب الجل من الله لو فكنتهم لو فكناه ولما تمام مسلم في البرحة لمدفتين لما سمبقكم ومدفتين إلى جسم بالجسين لنسر الوحلة بعث ورحب ورحب الخاص Di bersih ini ini mau ikuti fase likit tangan ke bulu kurdi khol jenena baku lebih ini ini lulu sebuah ini ini mana tak sebuah tak ada sokon yak sebuah sokon yak kurdi yifir sebuah di yifir sebuah sokon yak وبدأنا ما يجري الذي يسلك التي تعالى أما فاطمة لو شهدت لو شهدت ببطن خبزه وقد لاق الهذر أخاك بشر إذا لرأيت ها أغلب العقائد بديع الزمان الهمذاني ثم تحجب عنه ko gis ci arab té lé ngi gis bi yam jidul daw lol dama ya bessa xalna ni yelli sunu gan di wax na ta du gan ndax momom rek ci ci lenu dinañ ko dëkk ci Tiwaawan kilifa yi nettali nañ ko at nit Tiwaawan amee ñaari gàmmu at nit Tiwaawan amee ñaari gàmmu te ca déwén sa tubaab di séentu ñaari délégation benn bu jóge ci Serigne Babacar Sy ak Serigne Babacar tànn ma ne naa dem représenté ji ko fa Cheikh Al Hadj Mansour tànn Serigne Ndiogu ña ne na dem représenté ko fa tubaab yaa ngi taxaw ci peron bi xam naa dañu wootante ñëwoon ca biir dëkk ba sa ñëw nañu di seet ñaari délégation yi ndax dañuy piisante wala dañuy Mansour dama xamoon ci moom loolu ba moom rek la daan yónni ci man mosuma fàttali ku mu yónni keneen ci man ku dul moom ba ci guddi gi nga xam ni ci ëllëg sa la góor gi wuy ji boroomam moom la yónni ci man ma wax ko instruction yu góor gi joxe yépp mësuma gis mukk góor gu mel ni sëriñ doo ko ñàkk mu ni ma jar na ormal mu ni ma lii góor gi wax ma ni ma jar na ormal jar na ormal jar na ormal ma jël soxna Umu Kulsum si ko demal ca Dakar nga wax Serigne ni ko lii la góor gi wax ma woo soxna Astou Sy mu ñëw ma ni ko góor gi nee na yaay borom bi jeex na kenn ku ci ne nangu li góor gi wax góor gi njoogu ñam nangu ko ci turu alxaj Mansour soxna su si Malick nangu ko Serigne Moustapha nangu ko ca Dakar góor gi séddale ko ñaari xar question bu dellu ci forme ak question bu dellu ci fond hmm. question bi dellu ci fond mu ne nañ ko ko fi bàyyi ko kenn la question bi dellu ci forme mu ne ko moom bu nara yàq ngeen bàyyi bu yàqul ngeen ngeen xam fu ngeen koo jaar looloo tax ma sañ def jubóo bi waaw maa ngi ko def ci cadre forme ñemewu ma ko def ci cadre fond ñemewu ma ko ma bëgg ñeenti point yi constitué question de fond yi ngeen laaj ko ñi sant si lan la oh, Allah. waaw warte am na lu ma xam mooy kenn du doon sa baay doon baay jàmm mënul ci sa baay Mansour nga ko donne mooy lu la nit sédd nga ko maree ni ko tayal rek waaye yërëm tax ma ni tayal rek waaye du loolu parce que boo séddoo ba ngay naw boo màggee doo bu dee toolu bulil toolu bulil ci làmmiñu sëriñ Muniru la génne boobu ñu ngi amee commune car ma jënd ko ci société bu ñuy wax commerce ñu jaay ma ko ci ñaar fukki junni ba ñu demee tourné ci commune car ba ba wàññi sëriñ mu ni ma bindalal commune bi li jaar ndax li mu dox ci service kër gi kenn dootu ko dox bindal ko lijaasa mag ñi daan nañu bindal fas lijaasa fasu jihaad nu jaar Saalum àll bi amul yoon nu réer boole coonoog xiif ak lépp ba ak si fenn ma ne ah, fii day ku fi amoon tool sering meniru nimbah dugung ganat. Pada kalau tak menimbah mak ni, punya masang wah degel.